ak si Abdou Lahad yaa xayra munsilin waqaa bi asbala wa xayra munsilin xabaa bi basmala salli bi taslimin ala man faaqa fi xalqihi wa xulqihi ittifaqa sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lhaali wal maali barke si Abdou eh, yi ñoo leen nuyu bu baax di leen siyaar di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàggal ko fi lool ànd ko wér ci barkeb sëriñ bi tey ñaanal mboolem njabootuk sëriñ bi ñoom ñëpp suñu borom yàggal leen fi eh, di nuyu waa Touba Vision yi nga xam ne ñoom ñoo def liggéey bu yaatu bi ci réew mi ak bitim réew suñu ji ñu ngi lay nuyu baax di siyaar ci bis bi bis bi nag muy bis boo xam ne eh, fii ci gox bi ci Brescia ci Pontevico dañuy def le 15 août bi ne ñu fi dajaloo di fi eh, jàng alxuraanul karim def ay berne def ay ñaan ngir jagaleel ko sëriñ Saliou ñu ñaan suñu boroom jotale ko ci lépp ci barkeb sëriñ bi eh, am solo gum am solo nag moo tax nga sàkk woon ñu sànni ci ay kàddu ci luñ ci mën a jëlee eh, si suñ digganteeg alxuraan ci fonk guñ ko war a fonk ak it jël gu ñuy jël. alxuraan di ci ñaanal Serigne Saliou loolu ban soññe lañ ci war a def xanaa di ko gën a fonk te di ko yitteel def ci yitte bu baax te xam ne <clears throat> xéwal la goo xam ne lépp dafa nekk ci biir moom alxuraan te ab murit moom fonk alxuraan da koo war ndax jëmmi sëriñ bi mooy tax ndax sëriñ bi ci waa nee na lépp lu am am am rek ci alxuraan la ko amee lépp loo xam ne itam àgg na ko ci boromam ba daraja yu kawe yaa kawe sax nga xam ne jotuñ ci woon a àgg bi moom àgg ja ba weesu ko nee na ci alxuraan la ko amee bi muy dem ci géej gi itam ku ne xam na ne ne alxuraan moo nekkoon wéttalam rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabu fil bahri hina adoru alxuraan jooju nag euh, liggéey bu rëy rëy la la ci Serigne Saliou def boo xam ne yaakaar naa képp ku koy ñaanal njëkk ci alxuraan loolu yaakaar naa ne lu am solo la loo xam ne delloo njukkal Serigne Saliou la ci alxuraan ndax yaakaar naa buñ doon lim ñi nga xam ne dañoo seen alxuraan dafa rafete ci kippaaru Serigne Saliou yaakaar naa mën a sutu ko mën a su ko bind ci ay chiffres ndax ay junni junni junni junni junni junni junni la yoo xam ne maanaam ci kippaaru Serigne Saliou la lañ lañ lañ xamee alxuraan Serigne Saliou itam liggéeyam bépp bépp bépp bépp dara génn ci woon alxuraan ndax daara ju mas a sanc ci daaraam yëpp boo ci dem boo duggee ci daara ji rek jàkka ji moo lay féete euh, daara ji moo lay féete sa wetu ndeyjoor jàkka ji féete sa wetu càmmoñ wax nañ ne itam daara ju masa sanc bala mu ko sanc néeg bañ fay njëkk a tabax jàkka lay doon ba noppi kon kooku yaakaar naa ne luñ koy defal ci alxuraan rek ak di ko ci ñaanal delloo ko njukkal la ak jox ko ab ciram ci alxuraan sëñ Saaliwu nag e, lis ci mën a wax bari na lool donte le sax xamuñu lépp dañ ci fortaatu rek kemtulaay lañ ci mën a xam te mën koo jariñoo waaye e, jikko yi nga xam ne nekkoon na ci moom te ñu mën koo jariñoo ci moom yu bare bari la bokk na ca muñ mën a muñ bokk na ca itam rëy rëy ay rëy rëy yitte ci digganteem ak boromam ak digganteem mak sëriñ bi yërmaande ji moom ku ne xamoon na digganteem ak mbindeef yi ndax wax nañ ne daana wax naan ku dul yàlla mi sàkk jaam ñu ëpp mooy ëpp mu yërmaande ci ci mbindeef yi loolu it muy lu lu kawe kawe loo xam ne yaakaar naa kenn ku nekk xam nga ci xam nga ko ci sa bopp ci sa digganteeg moom. kon bu ñu dajee fii tey jii doon ñaan def ay ñaan di ñaanal Serigne Saliou loolu lu am am solo la loo xam ne waruñu ko sax di sàkkal ay bis waaye bis bu set la war a doon xanaa di ci soññ suñ bopp di soññ ñëpp rek yu mel ne xeeti ndaje yi bu amee ñu ci ñaanal kilif ñu koy jox gëdd ba ca war alxuraan ci itam buñ ko waree jàng ñu jàng ko ci gën gaa rafet ji ak ja aw jàngin ci sellal ko lu lim yi kaamil yi bari bari bari bari te ñàng ma sellut du am solo bu baree ba noppi wëlbati ko nag moo cay gën waaye it itte ju ji ñu ko war a jox daal war nañ ca soñwaat suñ bopp bu baax ci bis bu mel nii ak beneen bis boo xam ne itam lu mel nii lañ koy defal ko ku baax ndax ñaan moom ginnaaw da ngay ñaan da war di bàyyi xel bu baax a baax fi ngay ñaan ak ni nga koy ñaanee te alxuraan dafa nekk loo xam ne lépp looy jox jëm ca moom rek di jëme ko ci moom rek da nga caa war def ay ay ay ay teggin boole kook itam pësteef bu kawe mooy tax la nga cee bëgg nga mën ko ca am kon euh, bisub tey bi looloo ko waraloon daje fi ngir ñaanal Serigne Saliou di ñaan suñu borom ñaan yi fi ñaan yëpp suñ boroom nangu ko te def ko addiyee Serigne Saliou te ful ko euh, liñ ci mën a euh, bind bi nga xam ne mën nañ ko cee joxe rek te Sëriñ Saaliwu mm, daanañ dégg ci koo xam ne moo ko Sëriñ Saaliwu moo ko yar mu wax ne euh, sëriñ bi lépp lu mu wax rek dana ko def te lu mu def du ko wax loolu nag bind la bu ñu war a mën a jàngat suñ digganteeg suñ si suñ suñ suñu suñuy jëf ni jëflanteel koo xam ne loo wax def ko te loo defit doo ko wax mooy maanaam lépp loo xam ne nee na dana la ko dana ko def dana ko def waaye bu defee ba noppi itam mu seq ko yow ci wàllu teraanga wala mu seq ko ci wàllu ndim wala mu seq ko yow ci wàllu bëgg laa dimbali yow yaa koy waxaat waaye moom du doon lu muy waxaat moo tax ñu lu mu wax def ko te lu mu def du ko wax loolu nag ab bind la bu rëy a rëy boo xam ne war nañ ko jàngat suñ digganteeg mindeef yi yërmande ji nga xam ne amoon na ko ci mindeef yi itam gis mu mos xam mbaa ñu gis ku toll woon ci yërmande ci ñëpp ñi nga xam ne sax duñ ay duñ duñ duñ duñ damaa jël ay ay nit ak yooyu waaye ba ci mala yi sax dafa amoon ci ñoom yërmande loolu bokkoon na ci li taxoon sax ba daanaka nangootutoon ay ak ak jur wala ay nag wala dara ñu ñu ci di bàyyi am na ku ma nettali koo xam ne nee na ma sëñ bi àggoon na ci yërmande nee na benn bis muy tibbaate muy tibbaate nii ab ab ab ab ab reer wala ab añ bi muy tibbaate añ bi wala reer bi ay ginaar nekk ci mu mu jàpp ci ginaar gi wax kooku ne ko. jàppal fii koo ko jàpp rek bif ko bif gi ko bif rek sëñ bi da ko cee da ko cee kii ndax yërmande ne ko ay waa jiite nga ko def ndànk nga xam ne ginaar gu ñor la ba noppi te ñu koy ñu koy dagg waaye ni ko kooku bifee rek moo tax mu ne ko te te te te ko te ko te ko ñàkk nga yërmande te nga ko def ndànk ginnaaw nag léegi kooku yërmandeem àgg na ba ci yàpp wuñ lakk bañ ba ñor sax boo koy dagg da nga koy dagg ndànk ngir yërmande sëñ bi kooku yaakaar naa yërmandeem weesu woon na weesu woon ay ay nit kon yërmaane jooju nga xam ne amoon na ko ak sutura si nga xam ne amoon na ko nga xam ne àggoon na ci sutura wax nañ ne daana tere dara ci donga yi loo xam ne bu ko teree ba noppi bu gisee ku koy def du ko xaaj waaye day làqatu kook ngir bañ bañ kooka gis ko di rus loolu yi daana ko def loolu ñu mën cee mën cee bàyyi xel daana waxit naan euh, nit ñi dañuy jàpp ne léeg nit ñëw ci man jàpp ne xàmmeewuma ko wala xawuma ko wala dama koy bañ a xool nee na du caagin dama koo xam xamee wala dama koo gisut waaye nee na ni jàkk nit di ko xool nee na loolu da koy wattandiku ndax day bañ a gis ci moom loo xam ne lu ko lu mu ko doon nëbb la ngir bañ mu gis ko nee na moo tax nee na muy muy muy muy lamsal bëggatu ni jàkk nit ki di ko xool ndax nee na bëggatu gis ci nit ki loo xam ne bu ko xoolee fekk boobu loolu daa am lu mu koy nëbb ci boppam loo xam ne bëgg ko a gis loolu nag ku ko xam ci sutura ak yërmande yaakaar naa loolu ak sàmm ak ak sàmm loolu yaakaar naa war na ci mën a jàngal suñu diggante ak Sëriñ bu baax di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla ñu ko yàlla dollil ay tawfiix te yàggal fi xalifaam bi Serigne Cheikh moom Serigne Saliou yàggal fi mboolem njabootu Serigne Saliou gi yëpp ñi nga xam ne itam ñooy taalibe yi tey taja fi doon ko fi defal ak ñaan te di ko def at mu jot yàlla nañ ko yàlla yàgg def te luñ ci defee yàlla na ko yàlla nangu yàlla itam tàppe xool yi boole ñu ñun ñëpp ñu àndandoo liggéeyal sëriñ bi te suñu baax xiir ñu ca nam bëgg ñu mel na ñu mel noonu maanaam yàlla nañu yàlla xiir ci ni sëñ bi bëgg ñu mel ko te bu baax a baax a baax a baax kenn ku nekk def yitte ci sa bopp jël ay jikko yi Sëriñ Saaliw jim ko roy ci maandu jàpp sax njàmm ci lu sa yoon nekkut bari njariñ di jariñe ba noppi te doo ko wax sa yitte kawe lool ci sa diggante sa sa sëriñ loolu yaakaar naa buñ ci royee sëriñ bi roy ci Sëriñ Saaliw ci yërmande roy ko ci dimbale te yàlla tax roy ko ci ak dogu ci lépp loo xam ne jublu na ko buñ ko defee rek lépp dana baax incha allahu taala yàlla nañu yàlla bool dimbal defal ñu tawfiq ak taysiir di sant mboolem ñoo xam ne ñëwoon nañ ci bis bi ngir jëmmi Serigne Saliou yàlla yàlla fay ci barke Serigne Touba di ñaanal waa Touba Vision yi itam ci liggéey nga xam ne yeneen koy def suñu borom kàttanal leen gën a yokk mu xel gën a yaatal seenu dënn gën itam yokk liggéey bi kaweel ko ba nga xam ne fa ngeen ko bëgg àggale yëpp di ngeen ko fa àggale ak mboolem ñu leen ciy jàppale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa